sëriñ Tayfour Darame sëriñ Tayfour Darame mi ngi feeñ jamono ci atum 1921 ci dëkk waajuram nag di daaru Pakacaar ci dëkk boobu nag la sëriñ Tayfour Darame feeña jamono di doomu soxna Aminta Kanni Cissé ak sëriñ Moussa Darame moom nag am na ñu mbokkal soxna Aminta Kanni Cissé ak sëriñ Moussa Darame ñu mën cee ràññee soxna Roqiyatu Darame bintu soxna Aminta Kanni Cissé bintu sëriñ Moussa Darame soxna Seynabu Darame bintu soxna Aminta Kanni Cissé bintu sëriñ Moussa Darame soxna Alimatu Darame bintu soxna Aminta Kanni Cissé Cissé bintu sëriñ Moussa Daraame ak moom sëriñ Tayfour Daraame ibnu soxna Aminta Kandi Cissé ibnu sëriñ Moussa Daraame ñett ñu jigéen nag la bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen ak moom muy ñeent moom sëriñ Tayfour Daraame tur wii nag di Tayfour Daraame ñu wax leen lan moo tax nag waajuram tudde ko ko ndax bi mu feeñee jamono ci atum 1921 la waajuram waxoon ne doomu soxna Aminta Kandi Cissé mii nag képp koo xam ne nii daal gis ngeen ngi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam faatoon na la kaay xool jëmm ji mu tudde ko nag góor yàlla ñuy wax bokkoon itam nag ci góor yàlla yi nga xam ne nii ginnaaw yonent bi itam nag marqué nañ seen temps Abo Yazid mii nag ñu gën a xam nag ci Tayfur sëriñ Moussa Dramé nag tudde ko doomam ji ginnaaw yonent bi itam nag la feeñ jamono moom Abo Yazid mii ñu gën koo xam nag ci Tayfur wàlliwu la woo xam ne nii wàlliwu yi nag bàyyi woon nañ xel nag ci jëmm jooju soo delloo nag ci xaside gi sëriñ Touba Cheikhul Khadim bind tudde ko Majmahun Nooreyni ma ngi fay nettali nag lenn itam nag ci jëmm ji wala ma ngi tudd nag turu jëmm ji Cheikh Moussa Ka muy tàgg nag Touba Xaadim Rasoul ci góor yàlla yim doon tudd ngir di wax nag ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasoul ci képp nag kuñ fiy tudd nag ci ak baax wala jikko du yow nag di moom Abo Yezid mii nag di Tayfur bokk na itam nag ci ñi nga xam ne nii Cheikh Moussa Ka nag ñoom la jël wàlliwu woowu nag la Serigne Moussa Dramé nag tudde doomam ji nag di Serigne Tayfur Dramé tax na nag doomu Serigne Moussa Dramé bi nekk itam nag ku yéemee bi mu matee dal alxuraanul karim magam Serigne Mor Bodda Dramé moo ko dalal alxuraanul karim nekkoon caara ginnaaw bi itam nag la fa bàyyi ko dem nag ci dëkk bu ñuy wax Madina Màkka ci ku ñuy wax sëriñ Alioune Atta mu wéel fa nag am njàngum alxuraanam ginnaaw dëkk bii nag di Madina Màkka daa demaat itam ci beneen dëkk bu ñuy wax Madina Ndaween ci ku ñuy wax Alaaji Omar Ndaw ci Alaaji Omar Ndaw mii nag la jeexale njàngum alxuraanul karim foofu itam nag la tàmbalee jànge itam nag lii di xam-xam ñu yóbbu ko ci dëkk bu ñuy wax nag wen ceewee jox ko fa ku ñuy wax sëriñ Mouhamadou Lo Kandaraame ginnaaw foofu nag lañ ko yóbbu ci dëkk bu ñuy wax nag kër Abdou Faana ci magam ju ñuy wax sëriñ Baabu Mati kër Abdou Faana lañ ko yóbbu nag ci dëkk bu ñuy wax Cikét boole ko ku ñuy wax sëriñ Daara Seck mu wéeltim nag am njàngum xam-xamam ginnaaw Cikét lañ ko yóbbu nag ci dëkk bu ñuy wax Ngayeen Siina jox ko fa ku ñuy wax sëriñ Alaaji Géey Awa kilifa yooyu ñu leen tuddal itam nag ñoo ko jàngal moom sëriñ Tayfur Daraame mu nekkin nag ku yéeme bi mu feeñee jamono la waajuram dajale woon nag mbooleem dëkk boobu nag di daaru pakacaar doon leen xamal ne képp koo ne nii daal gis yonente bi faatoon na la kaay xool nag jëmm ji tax na ci diirub li muy jàng mbooleem nag daara ju muy jànge am Ndao itam nag lañ ko booleel ci biir mbooloo miñ ko booleeloon nag ñu mën cee ràññee ku ñu wax sëriñ Ibrahima Njànko Daraame sëriñ Mbay Daraame doomu sëriñ Baabu Daraame mii magam lañ ak ku ñuy wax sëriñ Ibrahima Daraame ak sëriñ Soxna Daraame ñoom doomu sëriñ Moor Bode Daraame lañ mii ba tey ak ku ñuy wax sëriñ Moodu Faatu Daraame jamono ji sax moo nekk imaamu Daaru Pakacaar sëriñ Mbay Tambidu mbooloo mi nag lañ ko booleeloon ci bépp daara boo xam ne nii nag jaar na fa di jàng gépp daara joo xam ne nii daal sëriñ Tayfur Daraame jaar na la muy dunde mbooloo mi ñi ñu àndal nag ñoo koy joxe ginnaaw bu mu jeexalee am njàng nag la delsiwaat nag ci dëkku waajuram di daaru pakacaara bi muy delsi daaru pakacaar mbooloo mu baree bari itam àndal nañoo moom bépp dëkk nag bu mu jànge am na nag ñu koy jébbal nag seeni doom yaakaar nag juñ teel a am nag ci doomu sëriñ Moussa Daraame bi ci mbooloo mi mu àndaloon nag ginnaaw bu mu jógee nag fi mu doon jànge ñu mën cee ràññe ku ñuy wax sëriñ Ibra Caam Jéeya sëriñ Baabu Njéeme Caam Ibra Daawu Moor Maram Moodu Saaxoo Malik Ñasa ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ca xayma woon nañ mbooloo ma ñu toll nag ci juróom-ñett fukki doomu aadama mu ñibbisi nag ci dëkku waajuram nag di daaru pakacaar di dëkk itim nag bu mu feeñe jamono ginnaaw bu mu jàngee ba ñëw nag kër magam sëriñ seex Seynabu Daraame la nekkoon ginnaaw bu mu fa defee ab diir nag la donga yëm àndaloon nag ginnaaw bu mu jàngisee ba ñibbisi ñu wutal ko kër nag ci dëkk boobu nag di daaru pakacaar ci kër googu itim nag la nekk ba ni mu génnee àdduna ci atum 1982 ñu boole kook soxna suñuy wax soxna Ramatulaay Siise mook soxna Ramatulaay Siise nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññ ràññee ku ñu wax soxna faatimatu daraame soxna ummi daraame soxna xadijatu daraame soxna asiyatu daraame soxna awa dara daraame sëriñ fàllu daraame mi mu fayee cheikh mamadul faadal ak sëriñ abdu samad daraame mi mu fayee sëriñ abdu samad mbàkke ibnu sëriñ tuba xaadim rasul njaboot gi nag la soxna ramatulaay siise am ak sëriñ tayfur daraame neen soxna nag bu sëriñ tayfur daraame dëkkoo woon muy ku ñuy wax soxna maymunatu daraame mook soxna maymunatu daraame am nañ nag ak njaboot ci biir njabootuk soxna may daraame dara mën cee ràññee gaañe ku ñuy wax sëriñ Moustapha Darame mi mu faye cheikh Mamadou Moustapha Mbacke sëriñ Xaadim Rasul Darame di kim faye nag sëriñ Touba Cheikhul Xadima sëriñ Ababacar Darame ñu gënoon koo xam nag ci sëriñ Abo Darame cheikh Moussa Darame di kim faye waajuram sëriñ Omar Darame soxna Seynabu Darame ak soxna Ndey Darame njaboot gii nag la soxna Maymunatu Darame am ak sëriñ Tayfour Darame beneen soxna nag bu sëriñ Tayfour Darame dëkkoo woon muy ku ñuy wax soxna maam Atta Touré soxna maam Atta Touré nag ak sëriñ Tayfour Darame itam nag am nañ ak njaboot njabootam ñu mën cee ràññee ku ñu wax soxna Absatu Daraame Seydina Alioune Daraame baneen soxna nag bu sëriñ Tayfour Daraame dëkkoo woon mooy ku ñu wax soxna Maam Bodde Cissé moo soxna si itam na am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee ku ñu wax soxna Mariama Daraame Cheikh Mouhamadul Bachir Daraame di kim faye woon nag Cheikh Mouhamadul Bachir Mbàkke soxna Yaasin Daraame soxna Roqaya Daraame ak ku ñuy wax nag Cheikh Mouhamadul Faadal Daraame di baneen nag bu mu fayewaatoon nag Cheikh Mouhamadul Faadal Mbàkke soxna yii nag la sëriñ Tayfour Daraame dëkkoo woon njaboot gi itam nag la ci am mu wéy nag des nag ci dëkk boobu nag di daaru pakacaar di yar di jàng ak di jàngale boole koog nag daara jëm am foofu di tarbiya itam nag ngir lu jëmale kanam yoonu sëriñ Moussa Daraame bi ànd itam nag ci ginnaaw ay magam ba ni mu toogee nag toogaayu sëriñ Moussa Daraame sëriñ Tayfur Daraame ku jaxasoo woon nag njabootu ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasul la ñu mën caa ràññee Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ibnu sëriñ Touba Xaadim Rasul sëriñ Tayfur Daraame tudde na ko doomam soo delloo nag ci way yi Cheikh Moussa ka way jagleel ko nag jumaa ji addiya yu daa jóge itam nag ci Saalum sëriñ Tayfur Dramé amoon ci taxawaay bu yaatoo yaatu ci ginnaaw nag Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke ñu teewlu ko waa Kaolack ak waa Bambuk ak waa Pakacar Cheikh yi la daa siyaare Hamdi di ko jar Cheikh Góora Sey daana luyaa saxaar ya ca jamonoy Cheikh Hamdi xànd ak gaaya màggal bisum màggal ya ak jumaa ya téeméeri junne lañ daan yet waay seex Mouhamadul Fadal Mbacke ibnu sëriñ Touba Xaadim Rasul ku jaxasoo woon ak sëriñ Tayfur Dramé la sëriñ Tayfur Dramé itim tudde na Cheikh Mamadul Fadal Mbacke dooma Cheikh Mamadul Bachir Bachir Mbacke ibnu sëriñ Touba Xaadim Rasoul ku jaxasoo woon ak sëriñ Tayfour Daraame la Cheikh Mamadul Bachir Mbacke daana wax sëriñ Tayfour daana wax ne bu dul li ma ñaan suñu borom tam may ma ko ci jëmm ji nag di sëriñ Tayfour Daraame tur wi nag yow laa ko mayoon loolu itam nag Cheikh Mamadul Bachir Mbacke daana ko wax sëriñ Tayfour Daraame ci 1921 bi sëriñ Tayfour Daraame nag di feeñ jamono Cheikh Mamadul Bachir Mbacke dafa àndoon ak Cheikh Mamadul Fadal Mbacke ci dëkk boobu nag di Daaru Paka Caara booba nag sëriñ Moussa Dramé jumaa jam fa tabaxoon ca at moom itam nag la ko doon immigré tombeeg itam Cheikh Mamadou Bachir Mbàkke nag di def tournée Saloum yi ginnaaw ba mu fa ñëwee nag la fekk nag sëriñ Moussa Dramé am gan di sëriñ Tayfour Dramé loolu nag moom moo taxoon sëriñ Moussa Dramé daa ko wax ne bu dul woon nag li ma ñaan suñ borom te may ma ko nag ci jëmm ji nag di sëriñ Tayfour Dramé tur wi nag yow laa koy tuddee sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke ku jaxasoo woon nag sëriñ Tayfour Dramé la bu sëriñ Tayfour Dramé nag masaa ñëw ci dëkk bu sell bii nag lay dal ci liñ tudde nag màggalug Touba gi daana fi wàcce itam nag lu tolloog fukki kaamil ak juróom-ñaar ginnaaw bu ko sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacké gën a nag ci sëriñ Tayfur Daraame sëriñ Ceerno Faal bokk ci nag ci ñi jege woon sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacké la sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacké boole woon nag sëriñ Tayfur Daraame sëriñ Tayfur Daraame itam nag di dal kër sëriñ Ceerno Faal foofu itam nag kaamil yim daa wàcce kër sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacké daana ko fa wàcce kaamil alxuraan yooyu mu fa daa jàng nag su fa masaa dal di ko jàng ña ngi koy wéyal nag ca fañu nekk kaamil yi nag mi ngi tolloon nag ci fukki kaamil ak juróom-ñaar sëriñ Touba Cheikh Salihu Mbacke ku jaxasoo woon ak sëriñ Tayfur Daraame la ndax daana ñëw nag ci dëkk boobu nag di Saalum ci sëriñ Matar Ajara nekkoon itam nag ab taalibeem daa ko seet si ci dëkk bu ñuy wax na kër Matar Ajara su masaa ñëw Saalum nag daana seet si itam nag sëriñ Tayfur Daraame ndax nag ak kóllëre nag gu ñu amoon sëriñ Touba Cheikh Salihu Mbacke ba tey bis bii ñuy màggalal sëriñ Tayfur Daraame ci njaareem moo joxe itam nag bis ba na sàkku itam nag ci njabootam bisu làqu yi daal bu sañoon wut nag beneen bisitim nag bu ñuy fàttali ko mag ñi sëriñ Abdou Samad Mbàkke ibnu sëriñ Touba xaadim Rasuul ku jaxasoo woon ak sëriñ Tayfur Daraame la sëriñ Tayfur Daraame tudde na sëriñ Abdou Samad Mbàkke moom sëriñ mi fi sëriñ Moodu Busa Jeng moom Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ku wëlërante woon ak sëriñ Tayfur Daraame la ba tax na ñoom ñaar nag séq nañ lu baree baree bari sëriñ Tayfur Daraame ku jaxasoo woon ak sëriñ Saalihu Mbàkke la moom Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke jébbaloon na nag ay taalibe sëriñ Saalihu Mbàkke moom a Mamadul Mamadul Faadal Mbàkke ca mbooloo moom jébbaloon sëriñ Saaliwu Mbàkke moom Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ñu mën caa ràññee ku ñuy wax Cheikh Kucee Daraame sëriñ Omar Faatu Daraame sëriñ Alioune Roqaya sëriñ Ibbu Faati ngir ñu yaakaar nag sëriñ Saaliwu Mbàkke moom Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke mbooloo mi itam nag nekkoon ci dëkk bi nag di Daaru Pakacaar waxoon na leen itam nag ñuy bayal sëriñ Saaliwu Mbàkke ab toolub àllarba waaye lépp loo xam ne ni nag moo ci aju nag ci wàllu jiwu moom sëriñ Tayfur Daraame itam nag moo leen koy jox mbooloo moom itam nag wéy nañ ànd ak Fadal Mbàkke ginnaaw nag bu fi sëriñ Saaliwu Mbàkke bàyyi ko lañ jébbal seen bopp nag sëriñ Jiili Mbàkke moom Cheikh Mamadul Fadal Mbàkke ba nëg na itam nag ñu ngi ci kër googu sëriñ Basiiru Seck moom sëriñ Aliou Seck wanaar ku jaxasoo woon ak sëriñ Tayfur Daraame la def na wayu takkoo takkoo takku ci sëriñ Tayfur Daraame di ñu wax nag jikkoy sëriñ Tayfur Daraame ak melakaanu sëriñ Tayfur Daraame ku jaxasoo woon ak Alaaji Omar Ndaw la bu Saalum doomam sëriñ Muntaqa Ndaw itam ku jaxasoo woon ak sëriñ Tayfur Daraame la waa jaamal ginnaaw kóllëre yu takk yooyu mu amoon nag moom sëriñ Tayfur Daraame tax na itam nag tundu saalum woowu lam fa am itam nag ci ay turandoo kenn xamul nu mu toll ci mbooleem nag tarixa ya fa nekk ak itam nag ci mbooleem nag magi saalum yi ñu mën cee ràññee sëriñ Tayfur Cissé ci dëkk bu ñuy wax Jaamal sëriñ Tayfur Gay ci dëkk bu ñuy wax Ndofaan sëriñ Tayfur Saaxo ci dëkk bu ñuy wax Caaxo Njigaan sëriñ Tayfur Saaxo ba tey ci dëkk bu ñuy wax Casamance sëriñ Tayfur Daraame ci dëkk bu ñuy wax Kër Moor Sute sëriñ Tayfur Touré ci dëkk bu ñuy wax Ndaam Lo sëriñ Tayfur Saaxo ci bu ñuy wax Poroxaan sëriñ Tayfuur Ndaw ci dëkk bu ñuy wax Pakacaar Njaayeen sëriñ Tayfuur Siise ci dëkk bu ñuy wax Daaru Pakacaar sëriñ Tayfuur Ñaan ci dëkk bu ñuy wax Ndindi sëriñ Tayfuur Njaay ci dëkk bu ñuy wax Pakacaar Njaayeen sëriñ Tayfuur Bajaan ci dëkk bu ñuy wax Pakacaar Njaayeen ak yeneen ak yeneeni Tayfuur yu nekk itim nag ci tundu Saalum woowu magi Saalum yi cofeel nag guñ amoon nag ci doomu sëriñ Musaa Daraame bi tax na Saalum ay turandoo bari le na ko fa lool mu nekk nag ku yéeme nekk itim nag ku xel bi mu feeñee jamono 1921 la waajuram nag xamaloon nag mbooleem waa daaru pakacaar di leen wax ne képp koo xam ne nii daal gis yonent bi nag faatoon na la man ngaa ñëw nag xool jëmm ji ba tey ci jëfi sëriñ Tayfur Daraame bi muy nekk tuut tànk sëriñ Moor Seck di waajuru sëriñ Fàllu Seck mi nekkoon bëkk néegu sëriñ Touba Cheikh Salihu Mbacke wax na ne sëriñ Tayfur Daraame bi muy gone waajuram sëriñ Moussa Daraame yónni woon na ko ay xal mu fab xal ya nag ëmb ko ci mbubbam mbubb ma lëkkul lëkkul ginnaaw Mansour nag moytul lii wala bàyyil lii bu la lorul itim am na ñu muy lor ba tey ci kiimaanuk sëriñ Tayfur Daraame sëriñ Baabu Daraame nag di magam mi ngi ñu denc nag ci armeer yi Tuubaa yi ku ñuy wax sëriñ Moor Njaay Waqit moo yoroon nag barabu sëriñ Baabu Daraame bi dafa seetlu woon ne guddik altine gu jot ak guddik ajjuma gu jot am na tànk boo xam ne daal saa bu xëy see nag dana ko fekk itim nag ci barabu sëriñ Baabu Daraame bi loolu itim nag jaaxaloon na ko gi itim nag daana bàyyi xel nag tànk boobu di ko nag ci barab bi barab bi nag di xaar tànk bi léeg-léeg itim nag mu teel a xëy si lool itim nag di rëbbu tànk bi waaye saa su ne itim daal du fi mën a fekkanteeg tànk bi guddik altine gu jot ak guddik ajjuma bu jot saa yeewoo nag dana fa fekk itim nag tànk bi bi ko loolu jaaxalee nag la dem seeti nag sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di ko xamal ne barabu sëriñ Babou Daraame bee guddik altine gu jot ak guddik ajjuma gu jot dafa am nag ab tànk itim nag bu ma fay fekk rëbb naa ko nag saa su ne waaye munumaa fexe daal ba teg ko bët sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad nag mi ngi doon xamal sëriñ Mor Ndiaye wàqit mii heure bu gisatee tànk ba nag na ko tibb nag indil koko ginnaaw bu ko sëriñ moor njaay wàqit mii nag indilee tànk boobu sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad nag mi ngi ko doon xamal ne doomu baayam ba ñuy wax Tayfour Daraame moo fii ñëw nag di ko seet si booba itam nag sëriñ Tayfour Daraame nekkul Touba ma nga Saalum ba tey ci jëfi sëriñ la toj nag ji nga xam ne nii nag moo nekkoon nag ci Daaru Pakacaar te waajuram nag sëriñ Moussa Daraame nag tabaxoon ko fa ngir yeesalaat ko entrepreneur bi nga xam ne nii nag moom la joxoon liggéey ba ñu ko doon wax wax sow ak maneebar ba nga xam ne nii nag moo fa nekkoon ñu ko doon wax itim nag galo sow ñoom ñaar nag ginnaaw bu ñu nekkee nag di liggéey ca jumaa ja sow mi nga xam ne ni moom moo nekkoon nag entrepreneur bi mu ngi doon xamal nag sëriñ Tayfur Daraame di ko wax ne nag diirum ñaar fukki at yàllaa ngi nii ma samp kër waaye doom moom mënuma ko am fu ma yaakaar nag moo xam cib sëriñ wala docteur dem naa fa xamal nañ ne ma ne daal munumaa am doom sëriñ Tayfur Daraame nag di ko wax ne jumaa ji ma lay sant de saa boo ko liggéeyee sa bëgg-bëgg moom dana faju ba liggéey ba pare sow moomu am na doom fa nekkoon itam nag di galo sow moom itam xamaloon na sëriñ Tayfour Daraame di ko wax ne itam nag diiru fukki at ak juróom a ngi nii itam nag maa ngi taxawal kër takk ndeer itam nag tënn ma lool sëriñ Tayfour Daraame itam nag ma ko doon xamal nag la mu waxoon sow moomu di ko wax ne daal liggéey bii daal boo ci feeñee lépp loo bëgg itam nag dana faju galo sow moom itam nag am na itam nag ak njaboota ba liggéey ba pare la ab taawam juddu mu tudde ko nag waajuru sëriñ Tayfour Daraame di sëriñ Moussa Sow baneen doom bam ca amaat sëriñ Tayfour Daraame la ko tudde ñetteelu doom bam amaat itam ginnaaw bu ko sëriñ Tayfour Daraame waajuru sëriñ Tayfour Dramé nag bu jigéen itam la ko tuddee muy soxna Aminta Kanni Cissé ba tey ci kiimaanu sëriñ Tayfour Dramé naari gànnaar yi nag daanañ def saa su ne nag ñi ñëw ci dëkk boobu nag di daaru pakacaar at mañ fa mujj te lañ yëgee ne nag sëriñ Tayfour Dramé nag nekku fii ginnaaw buñ ñëwee nag ba laaj ko dañ leen xamal ne daal sëriñ Tayfour Dramé nag génn na àdduna at moom itam nag la fa naari gànnaar yi itam nag wàññeeku doon nañ wax ne wàlli wu dem na ba tey ci jëfi sëriñ Tayfour Dramé amaloon na fa nag sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké tool bu mu tudd nag toolu sëriñ sëriñ Touba am na benn bis itam nag ci mennum at ñuy bay nag tool ba benn waay itam nag nekk itam nag ci biir tool ba bañ a bay di xool itam nag asamaan si sëriñ Tayfur Daraame nag mi ngi koy xamal ne liggéeyal nag te bàyyi sa xool bi alliwa ji nag di lawhul mahfuus sa jërul xool ku ne nga koy gis ba tey ci kiimaanu sëriñ Tayfur Daraame su masaa ñëw Touba kër sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke nag lay dal mu jugi itam nag kër sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke itam nag dafa xat ci moom sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke boole koog nag sëriñ Thierno Fall muy dal itam nag kër sëriñ Thierno Fall néeg boobu sëriñ Ceerno Faal daa ko dalal itam nag da daa senn su fa masaa nekk bu nawet bi ñëwee du tooy wala bu nawet bi ñëwee itam nag du senn sëriñ Ceerno Faal daana ko ko wax lan moo tax daal soo fi nekkee néeg bi du senn boo fi nekkul nag ay bool lañ fi teg ndax seen yu néeg bi ba tey ci digganteem ak sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke bi mu génnee àdduna ci atum 1982 sëriñ Ceerno Faal moom nag la sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke yónni ci dëkk boobu nag di daaru Pakacaar di leen xamal ne sëriñ Tayfour Daraame nag la soxla itam nag ci dëkk bu sell bi nag di Touba fiitim nag boroomam bi sëriñ Coorna Faal la fekk nag sëriñ Tayfuur Daraame ñu jébbal ko boroomam sëriñ Tuubaa Abdul Ahad Mbàkke yónni waatoon na sëriñ Coorna ngir mu wax njaboot gi ne sëriñ Tayfuur Daraame nag foofu ñu ko denc buñ sulli waatoon pax ma duñ fa fekk dara moom indi na ko nag ci dëkk bu sell bi nag di Tuubaa dem na Màkkatal Mukarrama nag ci atum 1972 aj googu nag ñamu àndaloon ñu mën caa ràññee ku ñuy wax sëriñ Alioune Sakho ci ci Pakacaar mbooloo mi nag bokk nañ nag ci ñi mu àndaloon dem màkkatal mu karama ci atum 1972 toog na toogaayu sëriñ Moussa Dramé ci atum 1978 ba ci atum 1981 nekk itam nag juróomeelu xalifa sëriñ Moussa Dramé sëriñ Tayfour Dramé nag yéeme googu mu yéeme woon tax na nag ay magam defoon ko nag imaamu dëkk boobu nag di daaru Pakacaar képp koo xam ne ñu nag génn nga àdduna ci ñi yaakaar sëriñ Moussa Dramé ay magam itam moom la ñuy yabal ngir mu taxawu ko ay magam nag daanañ wax ne sëriñ Tayfour Dramé képp ku mu taxaw yow nag doo lakk ndax kiimaan nag gumu kiimaane loolu itam nag tax na nag diirub dundam képp ku génn àdduna nag moo lay taxawu ci tund woowu soo delloo nag ci way yi ko doomam way di sëriñ fàllu daraame mag ñuy wax nag tur woowu nag di aboo yazid moom mooy kan mu méngale ko nag turandoom yi nag di sëriñ tayfur daraame mu ñuy wax nag bi mu feeñee jamono ci dëkk boobu nag di daaru pakacaar kiimaan nag yi ci waajuróom wax nag di sëriñ musaa daraame ay magam ko fonke woon ba defoon ko nag imaamu daaru pakacaar képp ku génn àdduna itam nag ci njabootub sëriñ musaa daraame gi maan nag yuñ ci waxoon melokaanu daal sëriñ Tayfur Daraame ak jikkoom daal nag la ñu doomam ji nag di nettali di sëriñ Fàllu Daraame ñu lu ko dellu si naa de xam le laf ci Tayfurum tafsir Moussa mañ tibbe woon aboo yesit ma ñëpp xam ci diina ji xatam ya mooy xati yónneen jëfam ja mooy sunna si yónneen tafsir Moussa waxoon na ca lu rëy a rëy lu mën la wax te loolu kat daa juddu rek mu xam le ko bisub juddoom ne donga yi ñu dem seer gan gile kat mat na seer magam ja waxoon na ne kum taxawee mu dem jinaan moo tax mu def ko yilimaan muy taxawee woy dawlee moo tax ma naan la déglu ma ma wax la lëf ci ay jikkoom aboo yeesit muslim la woon bu wér a wér bu ñu xamoon aboo yeesit mu'min la woon bu yiw a yiw bu ñu nawoon aboo yeesit taqi la woon bu ñu xamoon xaarif la woon aboo yeesit moxlis la woon ta boole koog xaabit la woon aboo yeesit naasix la woon te boole koog xakim la woon aboo yeesit aalim la woon déglu ma yow warix la woon aboo yeesit muslix la woon te yemu ca saalix la woon aboo yeesit saahid la woon te boole koog yiwe bu wér aboo yeesit sunnit la woon te boole koog murit la woon aboo yeesit qaanix xamoon la mu làmboo aboo yéesit saqii la woon dalay defal te du la ñax aboo yéesit saadex la woon nii la gonee baraw ñañam aboo yéesit saboor la woon bu mën a muñ tey digle muñ aboo yéesit saakir la woon lam nañ wa day dëkkee di tooy aboo yéesit saakir la woon daa sant yàlla may boroom aboo yéesit xaadil la woon su atte woon dana jubal aboo yéesit walii la woon ñii seeni maasa leen di xam aboo yéesit xalim la woon ta wegu woon ca ña ko xam aboo yéesit daa nëbbu woon ngir bañ ko xam mbiram di woy maqaamaatul ak bëgg yow la boole woon fu mu mën a ne bu daa doxit nga xam yaram bu la waxee wax la njëriñ ku bari woon kersa la moom looloo taxoon daawul siggi xaqiqatoog sarihatu la boole woon di ko doxe jikkoy sëriñ muy jajju ba la nekkoon baraw ñoñom ku judduwaale martaba ña ko xamoon jox nañ ko cër Cheikh Abdou moom xamoon na ko Cheikh Fallu it xamoon na ko ku weddi lii laajal ña xam ndax fasaloo ja yàlla wax haasa qalilun min kasirin qultuhu fi walidin ma zaala xayru qudwatin rahimahu Cheikhul Khadim doomu soxna Aminta Kandi Cissé ba ak sëriñ Moussa Daraame ba kam faye woon góor yàlla ga di Abo Yazid ñu gën koo xam nag ci sëriñ Tayfur Daraame mu ngi génn àdduna nag ci feebar bu ko tëral ci dëkku waajuróom boobu nag di daaru Pakacaar guddik ajjuma juróom benn fan ci weeru tabaski ci atum 1402 ci gàddaay gi ajjuma juróom benn fani tabaski ci atum 1402 ci gàddaay gi dëppoo muy vendredi 24 septembre 1982 vendredi 24 septembre 1982 ba set di samedi ñu jébbal ko boromam nag ci dëkk boobu nag di daaru pakacaar alaaji moodu faatu daraame di imaamu dëkk ba bokkitim nag ci taalibe yi njëkk a yaakaar nag sëriñ tayfur daraame moo ko jullee nag ñu jébbal ko boromam bisib keroog sax bi mu génnee àdduna ginnaaw buñ ko yëgalee sëriñ tuuba cheikh abdul ahad mbàkke ku ñuy wax baay ceerno faal bokkoon itam nag ci mag ñi nekkoon ci ginnaaw sëriñ tuuba cheikh abdul ahad mbàkke la sëriñ tuuba cheikh abdul ahad mbàkke nag yónni daaru pakacaar sëriñ tuuba cheikh abdul ahad mbàkke doon xamal nag baay ceerno faal sëriñ tayfur daraame moomu nag la bëgg nag ñu indil ko ko nag Touba laataa Baye Thierno Fall nag di egg nag daaru Pakacaar lenn itim nag ci njaboot gi jébbal nañ Serigne Tayfour Dramé nag boromam itim nag ci nag di daaru Pakacaar ginnaaw bu Baye Thierno Fall ñëwee daaru Pakacaar ba xamal yónneenub Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke njaboot gi ñu di ko xamal ne Serigne Tayfour Dramé daal mujj nañ ko jébbal boromam ginnaaw bu Baye Thierno Fall dellusiwaatee Touba nag ba xamal loolu nag Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke itim nag yónni waat na Baye Thierno Fall ci dëkk boobu nag di daaru Pakacaar di ko xam xamal ne su demee daal na wax ne njaboot gi foofee ñu denc sëriñ Tayfour Daraame suñ ko wàqi waatoon itim paxum kese nag lañ fay fekk jëmm jooju nag di sëriñ Tayfour Daraame indi na ko Touba nag ci wetu xaadim rasuul soo delloo nag ci marché bi ko sëtam defal di sëriñ Tayfour Daraame mag ñuy wax nag lu baree baree bari na ci dundug maamam googu sëriñ Tayfour Daraame nag mu ngi ñuy xamal ne sëriñ Tayfour Daraame maamam garab la nag gu daanu ci waa tundu Saalum woowu njariñ tim nag lu mu amaloon askan wi ñu ko yoroon waa Saalum yoroon njaboot nga xëy na fekk baayam moo doon woon baayam bu baax ba Muusa alxaaji Tayfooru Daraame Gorsa xaafis la aalim la karimu asli karimu ixwatin karimu nasli kenn la woon ku wecc mbooloo ci lu baax foo tudd Tayfooru ñu naa la ak a baax islaahu saatal bayni moom la doon woon lu ma sa xotteeku mu ñaw ca la woon ku ma sa yar doo gis ci moom ay jaaxaan ngir moom xamul saggan xamul kuy waañaan mooy ndox mu sell waaju mos teenam laajal ma naari gànnaar yi ñëwoon fa moom la fa xewoon rëy na ci gis ku mel ni moom kemam amul fii um na lambi diine roy nga musaak bamba kulla xiini bañul ludul ku xoppi war may diine mbaa tooñ walak mooy ak fen ci diine mooy asamaa sadaa tawal daaru salaam daalee dundal daaleen fegal sarali am tey foor la tur walan si wax de siiw ku man ko saw yaram xaraam na jahannama lasaa saxiiroog saxaru doo gis ko yow solil ma luy niroog xaru baayam junjoon na ko sayxu basiiru ne ñaan nga nangu na tur wa tey fóoru nee na ko at yu takku ñaan naa ko boroom lii rekk tax waaye ni kon yaay ki ko moom aljana am na gan gu maandoo maandu ngéej la gu fees ku kenn xamul lam wundu ay xalifaam nag nii la tëdde kam faye woon cheikh mamadul moustapha mbàkke ibnu sëriñ tubaa xaadim rasuul di sëriñ moustapha daraame moo toog nag ab toogaayam ci atum 1982 ba nëgëni ñu koy ñaanal fanam nag te yàggal ko ci toogaayu sëriñ Tayfur Daraame bi ak mbooleem nag ñu mu séqal sëriñ Tayfur Daraame sëriñ Tayfur Daraame nag am na ay bis nag yuñ koy fàttaliku ci luñ tudde ak màggal bisub juróom benn fan ci weeru tabaski di bis boobu nag ñu ko gëj a gis ci kaw suufa taawam bi nag di sëriñ Moustapha Daraame mi ngi koy màggal nag ci dëkk boobu nag di daaru Pakacaar wàcceem kaamilum alxuraan lay amal nag ca bis ba juróom benn fan yooyu itam nag ci weeru tabaski doomam ji nag di sëriñ Fàllu Daraame nekk itam nag ci njaareem bis boobu nag mu mujjee gis waajuram moom itam nag daana ko màggal itam nag ci njaareem googu itam nag mujj nañ ko soppi daaree alxuraan jim yor nag ci njaareem xale yi nga xam ne nii nag watt nañ alxuraan nag ba mokkal ko ci bis boobu nag la ñuy tari nag seen alxuraanul karim alxuraanul karim dañ cay tari nag ca bis booba barke baag alxuraan ja dana ca ñaanaalaale nag waa juróom nag sëriñ Tayfour Daraame jàpp nañ nag beneen bisu sëriñ Tayfour Daraame nag bu ñuy fàttaliku sëriñ Tayfour Daraame ba tey muy bis bii nag mu feeñoon jamono ci atum 1921 mu dëppoog nag ñaar fukki fan ak ñaar ci mois de juin tey fur daraame nag ci njaareema bis yooyu yëpp itim nag bàyyi nañ ko di jàpp nag bis nag bu ñuy fàttaliku nag sëriñ tey fur daraame bis bi nag amul bis fixe nag ci at mi saa bu ñu waxtaanee nag ba juboo lañ koy amal nag ci njaareem bis bi itim nag ci diggante poroxaan ak kazu bi itim nag lañ koy jàpp doomam ji nag di sëriñ fàllu daraame di kim faye nag cheikh mamadul faadal mbàkke moo koy amal itim nag ci njaareem ànd ko nag mbooleem nag ay doomi baayam yi mu séqal nag sëriñ tey fur daraame nag ak wóllëre yeeg soppe yi ak taalibe yi safoo nag sëriñ tey fur ñaan ca ka baayam waxoon ne képp koo xam ne ni gis yonent bi faat na la ñëwal xool ko di sëriñ Tayfur Daraame yàlla nañ ko suñu borom fayal nag te yokk ay leeram itim nag te taas ñu itim nag ci barkeem li di jafe-jafe réew mi itim nag yàlla na ko suñu borom saafara ci darajay waajuróom di sëriñ Moussa Daraame amin musa Daraame amin